Qui nga xamante ne ni euh, Cheikh Tidiane Cheikh Dien plutôt. Mhm. mi nga xam ne moo nekk ONAS dañ ko dàq dañ ko limogé parce que tout simplement il dafa la corruption d'accord il y a Abdou qui est sorti pour def interpellation au ministre hydraulique Cheikh Tidiane Dieng par rapport à ça ma la doon laaj lan moo ci sa xalaat si loolu waaw Cheikh Dien, moom suma xarit la woon bi mu nekk maire jiitu Thiaroye kaw bi mu nekkee présidence nekkoon na fi maag Ablaye Wade Ablaye Wade am ñu ko ñu ko jox ci wàllu environnement bi mu nekk jiite Thiaroye kaw danaa ko jox ay cinq cartons kaamil chaque année ndax man saoudien yi damay may liggéey ñoom ci wàllu document coranique yàlla def nag euh, mu bàyyi PDS am coalition bokk ci commencé jomaay wax dëgg yàlla bañ ko joxee nomination bi man ña ca kontaan ca la bokk waaye nag comme décret moo ko faroon décret jële ko fa te alxuraan dafa wax ne li ma sa taqulu ma la taalamun lu tax ngay wax la xam-xamoo ko bi maanaa jumaay bu sañoon tey Cheikh Dieng am ndam ca lañ ko dénkoon ndax am na ñoo xam te moom ñoo nekkoon ci coalition ba te kenn falu leen mhm. kon bu ñu ko joxee lu rëy li tonne orange nga xam ne daanaka mooy saytu mbirum ndox mi ban ak mitaa yaakaar a tax mm-hmm. la ca xusuus xusu la aram naan xusuusaan la la ne biir dëggantaan xamuma ko mm-hmm. waaye nag dañu wax ñaar ñaare daal xëccoo boo gis mm-hmm. am na ko moomut werante boo gis am na ko tooñ ah Abdou Mbow dañ nee na affaire comme dafay opposé wu. waxam mën nga ko dégg mais man nga ko rejeté. mais ñi des Sénégal ñu bëri coow li bëri na. oto laag corruption laag ministre baag lu tax tey mu gàtt parce que dañu ne comme ñi dañu ne tey même ku bokk ñu moom duñ ñu la muñal. kon lu mu gàtt gàtt boo defee tamit ñu def li ñuy def. li des moom comme moom ci boppam ndey seex gi waxut man mi fekkoon mënumaa wax. Mhm. waaye daal xam na ba dama ko daal. la ma waxoon rek la loo gis lu nekk am la ko lu ko waral bu defee moom xam na yàlla xam na waaye ñu ngi ko séqal xam nañu en tout cas daal comme daal seetal sentiment mënu ci am wala mën na ci am man daal su ma sañu daal peut-être teel na nag bu ñu wax teel na dàq teel na waaye mën nañ ko waxtaan ci biiru néeg ba defan ko ci leneen waa njokk leneen waaye daal franchement ah état nag wax dëgg yàlla état état la état du état du du wéy ci sentiment état non du sentiment état li le denk la te da nga bëgg leeral jub jubal peut-être xamna na man na xamna ko jambar nangula fala yam dal kenen ku ci wax ko xamni bi du ñom bir état bi mm. wala mom ci bopam kenen ko ci wax ci wax la nga yoon dañ ko ci yow lu ko jëlé mm. do wax lu bax ah bi Marius Sagna amna lu mu ci tontu sil Abdou Mbaw wax comme Abdou Mbaw na ministre bu wax deug Guy Marie nee na ko yéen na ngeen tontu ci 43 milliards assemblée nationale bi nga xamante ne ni booba tey amagul leer. waaw dëggal dëggal wallaay wax dëgg yàlla. ci cadre boobu ndax xam nga lu ko waral. senegal dañuy mën a gaaw a gàbb ngàbb nit. Mhm. du ko mën a xëccoo gis am ko moomam. waaw werante bu na ko tooñ. Mhm. yàlla rek xam mais moom xam na. Mhm. macha allah. <laughs> Adja loo xalaat ci loolu. Ah, dañu gaaw rek ci wax. ndax képp ku fi jaar rek yàlla teg la ci nguur gi mhm. la nga fi def lu nekk rek mooy la nga waroon a def te ku fi jaar def dara rek war nañ koy bañ a fàtte di ko wax ndax lu mu tuuti tuuti def nga ko te loolu la yàlla séddee woon pour nga def ko ci réew mi mhm. bu dem jotee it suñu borom dogal ko dangay dem keneen ñëwaat mhm. moo tax ñii fi toog nii bu ñu leen yàkkamti nañ leen bàyyi ak seen xel nañ leen dalal ndax yàgg guñ fi wax dëgg yàlla ndax am réew mënoo ko jot ko ci sax juróom benn weer mm. kenn ku nekk di wax sa soxla mm-hmm. te ku ci nekk la ngay kaas ni ñi ñoo ko def ka dem moo ko fi bàyyi wala ka demit ba ka mu jiitu moo ko fi bàyyi woon dara sotteegul mm-hmm. bu ñu waxee ci waxu mbënn mii mbënd mii ñoom mënuñu ko fi jëlee rek ci ñetti fan ba ci ñeenti fan mm-hmm. dañ ko fay fekk muy loo xam ne nag lu naqaree dindi la negam dinañ ko mën a dindi kon ñoom ñu ngi jéem nañ leen bàyyi ñu liggéey ni ñi nañu bàyyi wax ji nañu bàyyi wax ji te bàyyi leen ñu liggéey ndax ku bëgg sa réew ku nekk loo opposé opposé opposé war nga benn bés nga génn ci palaato yi wax loo xam ne lu nopp mën a dégg la ba ñiy toog ci nguur gi mën nañ koo jël jëriñoo ko lu jëmale réew mi kanam mm-hmm. mais saa yoo waxee rek nopp loxo dar gémmiñ ñu loolu baaxul mm-hmm. loolu baaxul nañu defante nawle kenn ku nekk na nga xool sa morom ki sa nawle wax ju ñaaw baaxul mm-hmm. te nit ki dangay gore am jomb jomb am looy ruus ndax koo xas tey bu ëllëgee ngeen daje jàmm nekk seen diggante boo ko waxee boo ko waxul ruus nga boo toogeek moom te ñoom ñëpp ay ñoo bokk ñoom ñëpp ñoo bokk am na ñu naan sax seen xastante yi tegawul fenn parce que bu ñu wéetee ñooy nekk benn ñooy kaf ñooy ree mais kon ñun ñi nga xam ne ñu ngi leen di déglu ñu bàyyi ñu xel xam ne seen ay nawle lañu ñuy waxante lu rafet. Mm-hmm. réew duñ benn fan du ñaari fan te réew état rek mënu ko jagal. Mm-hmm. te Sénégal gii pour nga defar ko dangay defar jëmm yi ba noppi. Mm-hmm. ndax léegi nga génn gis magum jëm mu taxaw ci bopp koñ tuur fa ndox. loolu it war ñuy teg daan ci seen kaw. ku tuur ndox ñu yóbbu la. defal la travaux forcés 72 heures fay loolu ñeenti junni wala juróomi junni boo lëggee doo ko defati. impunité bi ci réew mi moo tax lu waaye neex def man dama dem géejawaay sama kër yaay fan yii bi sama yaay génne àdduna toog suñu buntu kër BRT bi fa lay jaar ma gis fi BRT bi di jaar borom jakartaa yi di ko dog di fa jaar te loolu maara déen si lay indi xanaa nag wax dëgg yàlla war nañ fa def ay caméra wala bu leen épi pourquoi nit ñi duñu duñu duñu duñu duñu boole daal duñu duñu dénoncé mhm. surtout da gis lu anormal nga ni patt di ko seetaan doo ko dénoncer pour lan. Mm-hmm. Adja Arab Saoudite yàgg naa fa Arab Saoudite ëpp xoolal koo gis ñaari renseignement la. Mm-hmm. serveur bi renseignement généraux la. bitig bi moom la. police bi moom la. yaaykatu gerte moom la xam ndax seen réew la ñuy seet sàmm. Mm-hmm. ku fa dugg den ngan day identifier na fooy dugg ak fooy yàlla. dëgg la benn. Arabie Saoudite toog na ay at tawut ba 2007 la commencé taw te mooy xoolal adduna bi. 2007 mhm. la taw taw bay taw boo xam ne dafa yéeme te assainissement seen cat ar mooy kii. Mhm. assainissement mooy seen problème. ba tey amuñu robinet ndox dañuy tànq ca dex ga indi ci hôtel yi ñuy sangu ñuy sangu di jàpp mais mënuñ ci naan. ah waaw mais mais yàlla moo ne ko nattu. Mhm. ak la fa nekk yëpp. ak la fa nekk lépp problème assainissement moo seen problème. yàlla mooy Karim. kon ñu loolu mais Kaaba ga mas naa inondé mille neuf cent mille neuf cent soixante dix huit ma Kaaba ga dafa inondé ba kenn mënu faa dem dañu doon fii dafa dem ñu mujj leen ko tere mais mais ay xalaatu ko dindi mais toog nañ toog nañ douze ans mu soog a dañ bi maanaam ñu dem mën ko defaraat adduna comme ni wax la dafa am loo xam ne bii kii soog ñëw mu sëy kii soog a sëy sëy yam mhm. pour mën a toog mais day jàng kër gi dëgg la jàng njaboot ci bi maanaa nag ni koy olof dafa wax ne Sénégal yi du gëm nit day miin nit mhm. te Sénégal yi doo ko dig boo ko diggee bor la mhm. waaye ne xam ne ñoom dañ leen dénk nañ def nànk mhm. tey d'accord bëgg naa loolu moo am importance bi maanaa moo lay wax ne yëpp mooy dëgg la doomu aadama daal mooy que ne man su ma gisee nit ku defu nang dama lay boole xam nga tax ma lay <laughs> sama réew de non xam nga ko boo bàyyi mu law bu lawee sa kaw di jëm dëgg la am réew dëgg moo ko yor 1970 ngeen baal ma fekk na dafa fekk 70. waaw 70 boobu maa ngi primaire. ma nekk loo xam dafa wax ne ñi am ngénte ñëpp daal. ah <laughs> laax ya mi jeex. laax kenn toggatu ko woon defaratuñu beñe c'est vrai. eh loi la woon. loi ñi am ngénte midi ngeen tasaaroo. police day ñëw ramasse la yóbbu dëgg la. xaaral ma ak fii li gën Yacine. Hmm? kii togg sept heures lay lay lay taal sept heures. waaw 10 h demi yakna 11h heures nga deug ñu daw leen Senghor a ngi ñëw. <laughs> au lieu de fekk police bi ñew de mais duñu police bi Senghor ñu wax daw leen Senghor a ngi ñëw ndax Senghor moy kilifa ga. mais fi le Sénégal la woon. Hmm. mais xam nga Senghor lu mu jur lu mu jur jub yar nit gi baña yak yàq. Hmm. jumaay lu tax lool do ko mën indi mais wax mais man nga organiser ba coppaw lu bëri lek léeg-léeg bu bu mbër wëree bëri gi am na yooyu ñuy def ci yi ñëpp daje fa nu mu tudd seen xaw ma lan. ba ba mais avant avant ñuy bëree plateau yi ñuy def. face à face waaw am na ñuy def ci quartier ñëpp ñëw. waaw loolu est-ce que mënut a ñàkk. dee ko dégg de xam nga réew mi ñu ngi bàyyi loo xam ne bii xale yi nangatuñu jàng. Hmm. amatuñu temps. te alxuraan nee na afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan yàlla nee na yonent bi xanaa ngeen da ngeen defa na bi foo tax ma sàkk ma sàkk ko bilaay bi ngeen tuubul ba ñëw ci man te poom yi nag léegi lañ gën a favoriser tam réew njàng yar ak teey moo koy dundal mais pas ay fo ngeen baax mënut a ñàkk nag mais dafa yu gàtt la waaw gis nga